asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yu ñuy topp ci anternet bi rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu leen di nuyu di leen ziyaara rawatina nag ñi nga xam ne ñoo abonné ci chaîne bi te di ko topp tey nag mel na ni day gént di tàggoo gént di tàggoo nag bari na ay tegtal bu dee ku feebar am na lu muy tegtale ci moom bu dee ku am digganteem ak ab sëyam am na lu muy tegtale ci moom su dee ku bëgg tukki tamit am na lu muy tegtale ci moom nit bu fekke dafa febar nga gént ko muy tàggoo kooku dana yàgg ca tawat ja wala ñaare du ci jug sax bu dee koo xam ne danga am diggante sëb sëy moo xam ko góor ki moo xam ko jigéen ki la waaye yaa ngi gént di tàggu sa soxna wala sa soxna tàggu na noonu ñaare dana nekk ak tàggoo ak wàcc bu fekkee danga nekk di listixaar am tukki nga gént di tàggudoo kooku yable na maanaam tukki bu leer la ba tey bu fekkee danga nekk fu mel ni kuñ tëj kaso wala xeet yu mel noonu nga gént di tàggutoo Solid ak genna la am efarange na ate ñaar ñi nga xam dañuy faral di liggéey tur yàlla te di jaxase tur yàlla yi nga xam ne duñ ànd ndax ci am yoo xam ne ànduñu misaaj rawatane li ñuy tudde ismul jalaal ay tur wu fiir. ñaar yu mel noonu boo jaxasee tur yàlla nga gis aw nit di la tàggoo wala kilifa di la tàggoo loolu rawaan buy dem la loolu rawaan buy dem la kon gént di am na ci barab yooyu yu baax la am na ci barab yooyu ab saxaan la. ba tey ku nekk ci ay xat-xat gént nekk ci ay xat-xat yu tara tar ci biir gént gi ngay tàggoo dana tekki coono buy jeex kon mbokk yi lii lañ leen indiloon ci tàggoo ngeen wéy di abonné ci chaîne bi ndax bokk na ci li koy dundal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa